salaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV di leen nuyu ko ci nekk turam ak santam dem contentement ak mbégte di janob yéen chaque jour comme niñ koy defee ak chaque fois xew-xew làmb bu amee dañuy daal di dem toog acteurs yi daal di waxtaan ak ñoom waaye tey nag mën naa ne beneen xew-xew moo ñu moo ñu boole fii beneen xew-xew moo ñu fi taajale dañuy nuyu nga xam te ne nii mooy Cheikh bàyyi ko mu présenté wu comme ça ñu daal di wéyal ci waxtaan wi wax leen li fi xew sëñ bi maa ngi lay nuyu. oui jërëjëf euh, soxna Ndeye Mbacke maa ngi lay ziar di nuyu aussi mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan di nuyu aussi képp koo xam ne rek euh, yaa ngi ñuy suivre ci suñu làmb maa ngi lay nuyu man la Mame Thierno Ndiaye. di frère ci bébé Saloum. Mhm. maam Thierno Ndiaye na ko déggandoo di frère ci bébé lu tax ñuy daje nag tey du dara du ginnaaw ba mu duggee fi nga xamante ne nii mooy prison depuis am na cinq mois fi may wax ak yow nii 9 jours avant tabaski ba léegi mu ngi tëdd ci lalu hôpital ba. ndax tawat ñu bëggoon xam lan moo waral loolu lan moo waral mu ñàkk jàppale ba tax na mu nekk foofu depuis loolu mënuñu am ci moom benn ñu koo gis mënuñu koo dégg lan moo waral loolu. <laughs> waral loolu moom dañuy sawar rek donc pour tontu ci parce que damay wax ni jafe-jafe bu xasee ba ñëw rek ñëw na ndax Bébé Saloum li ko daal dafa xaw a metti te boo nekkee góor donc ñaari góor jur jur leen nga juddu ñetteel leen. yu bëri doo ko mën daanaka loolu moo waral jafe-jafe yi mu nekk mu feebar ci biir prison bi finalement ñu ngi ko yóbbu hôpital de Dantec mais nag ça va alhamdulilah gin bi ñu ko jàppee ak léegi ngeen ci def ay ay dox dox dox dox ñu naan Gris Bordeaux jëloon na ko avocat kii jëloon na ko avocat kii jëloon na ko avocat ci loolu fan lañ ci mujj abokaa yooyu waaw loolu moom aussi tamit damay sawar pour di ci wax parce que Bébé Saloum bi yàlla defee natt bi am man fekk ma woon Sénégal mhm. mais bi mu ko yëgee rek dama ñëw parce que man sama mag la en plus sama xarit la bi affaire bi di am sax ñu bëri dañ ma doon woo téléphone jàpp ne maag moom lañ jàppatoo parce que biñ ne suba lay am déggante nañ par whatsapp donc ñu ngi waxtaan lu baree baree bari mu nekk nit koo xam ne nit ku am solo la ci man nit koo xam ne man sama nattu la nattu bi mooy dama koo bëgg parce que xolom bu set mm-hmm. nit ñi nag dañuy wax rek kii jël na avocat kii jël na noonu Gris Bordeaux daal xam nañ ni jël na avocat vraiment def ci acte bu am solo ak Bara di maire de Yeumbeul Sud bu mujj bi rek man maa doon koor nekk euh, Bamba Fall da ko njëkk a jëlal avocat Met Fall après Met Fall par la suite nekkul Sénégal mu obligé jëlaat euh, Bamba Fall pour mu tax am ci beneen taxawaay yooyu avocat bi ñu jëlee mën naa ñetti avocat amul benn démarche wala dara lu yokk ci kaa boobu noonu di kaaw Saloum Saloum waaw non gisuñ gisuñ nag gisuñ ci dara benn avancement gisuñu ko parce que vraiment Gris Bordeaux jëloon na benn avocat mais avocat bi mu jël aussi daanaka moo bébé mënuñu déggoo sax normal parce que tey boo nekkee ci ci biir génn rek ngay gis te doon nañu am sax ñoom ñaar dañu doon réeroo ci lu baree bare bari parce que bébé Saloum xamul exact lan moo nekk ci ci ci dossier bi mais avocat yi dañuy xam exact lan moo nekk ci biir yow li ñu lay wax doo ko gëm lu dul nga génn mm. mais alhamdulilah donc ñu ngi ci daal ñu ngi ci def li ci war def mais bu ñu nee bébé jàpp nañ ko ñëpp dañoo ne dañ koo jàpp ay faux billets loolu dëgg la loolu moom du dëgg bokk na ci li ma gën a naqari sama àdduna parce que tey yéen ñi yor site internet yi ñëpp la ñuy wax man yor naa site internet ah muy yor naa ko yor naa ko sama kër muy Pikine mais bi ma ko yëgee man daf ma metti Oya Saloum mosul yëngu ci affaire phobie mosul laal phobie xamul lu foo phobie phobie yooyu mais nit ñi des fois dañuy bokk dañuy tiituli dañu koy changé waat loolu may lancé appel bépp site internet boo xam ne yaa ngi déglu sama kàddu ñu ñu defaraat jikko yi parce que tey Oya Saloum dafa am doom te tey lépp lu nekk ci net bi ba ba muy sangoo suuf set sëtaatam mhm. bu duggee ci internet bi loolu rek lay gis fu mu bindee archive bu papaam mhm. papaam jàpp nañ ko ak 2 millions mhm. te am na loo xam ne sax bëgguma ko wax mbër la de biñ suba la affaire bi am ba sànq dafa am ay problème sax luyaas comme ay problème luyaas di nga am problème di nga jor ay 2 millions foo biyee dañu waxante nañu seetaat li ñuy def dafa yor doom yor njaboot ñu bàyyi deru jàmbur bi nga xam ne ñu ngi koy taasal nattu moo ñëw te suñ borom bind na ko avant moom muy dund bu yàlla ne bis tel di nga dugg ci kaso duñ ci dugg li suñu waaja doon wax rek sëriñ Modou Kara Mbacke mhm. ne am murid dëgg sax dafa war a dugg kaso mhm. donc ci Bébé Saloum laa gëmee ndax tey si nga natt bu lay ñëw buy ñëw Ndeye Mbacke mhm. dina la fekk ba sa biir ne natt bi fekk la fa mais Bébé Saloum mosul laal foo biyee Bébé Saloum du tux du naan loolu dëgg du ko wax liggéey rek la xam avance am heure bu ko jëlee ay ginaar la ciy jënd barke Serigne Touba da koy lekk ba mu jeex ak ay nitam ak mbokk mbërëm lu mu am nit ñe ko tardeel mais situation nag moo ñëw yàlla ne da cee waroon a bokk rek mu dem bokk ca mais ndi ko nit ñi waxee dara amu ci dara amu ba tax na daal loolu yoon daal di koy teg loxo waaye état de santé ñi naan mu ngi aggravé à chaque jour ay mbokk mën ñu ko gis lan moo waral loolu waaw li ko waral mooy dafa tombé Covid bi donc semaine bee passé la la décret bi génn ñu ne mënuñ seeti kenn mhm. mais xam nga Bébé Saloum lu jiitu làmb depuis bi muy bëree combat mook euh, Gambien. dafa amoon problème ak benn mbër Manga 2 mi ko tegoon parce que jumbax bi dafa génnoon. léegi ñu opéré ko. bu ñu opéré matoo nit. opération ku ne xam na ne après li muy laaj lépp mooy loolu. yàlla def nag natt bi ñëw. ak situation bi mu nekk ak stress bi. donc jàpp ko mu feebar. en plus doomam jabaram tey naa mën naa ne suba suba bu ñu ne ko am na doom du ko bett. jafe-jafe yooyu nga koy dund sa waa kër. yor say mbokk yor say xarit di leen jox dépasse no bu dee góor nga rek bu la dara méttiwul war ngaa seetaat sa bopp. mais fu mu fan la toll fan la toll. waaw xamuñ ci dara. non si mu ngi ci loxo médecins yi nag tous les jours nag ñu ngi déggante ak médecins yi ñuy profité aussi di leen nuyu donc di waxtaan ak ñoom chaque jour ñu ngi dalal suñu xel mais en tout cas sonn na ci gàttal. jàppale bi ci war est-ce que mu ngi koy am ba léegi am na soutien ay mboq wala soutien axlu làmb. non non bëriwul nag parce que wéet na ci lool. des fois day wax ak man sax ba sama yaram day daw maam Thierno jàppale fii laa ko soxlaa. Mhm. buy coupé samay rongoñ day tuuru. parce que nag du maam Thierno rek moo war a taxaw pour jàppale Bébé Saloum mhm. ñun am na fu ñuy yem. Bébé Saloum ay gor la dese fi mu toll nii. Mhm. mais ñi ko daan topp démb ak bërki démb gisatuma ci kenn man maa ko wax. du ikiréem du ay mbokk mbërëm du kenn. Gris Bordeaux nag da ciy dox rôle boo xam ne dafa am solo bien vrai que mu am combat. mais heure bu ñu woowee Bébé Saloum tribunal bi Gris Bordeaux day ñëw. beneen bi Gris Bordeaux day ñëw kër kër ga di nday ravitaillement di ko jox soxna si. moom gis nañ ni mu ciy dugal loxoom. ak benn nit bu ñu naan Bara Gaye la maire de Yeumbeul Sud nga xam ne digganteem ak Bébé Saloum loolu démb la tey door a dikk ñooñu laa gis ni man ñu ngi jàpp ak benn rakkam boo xam ne dafa baax ñu koy wax addiya ak naar sëñ naar ñooñu daal ñoo ci nekk à part ñooñu gisuma keneen ku ci nekk sama yaram bàyyi daw sax loolu doy na waar doy na waar lool lool lool fu mu nekk nii ku nekk xam nga rek ku nekk ci kaw sa sa biir nga lijjanti waaye mais mënoo xam lii nekk ci biti kon mbokk yi ñoom ñoo war a lijjanti war a ñu réglé lu nekk ci biti fu ne nii bu nit ki tey jii bébé bu amoon ay ndam wala tollu ne nii ñëpp ci ginnaawam la ñuy topp li waa ji wax rek lamb moom ku nekk en activité moom la ñuy lijjanti ci en maa ngi for ci wéyu bëy sax ne am na ñoo xam te ne ñu ngi laaj ay ket wala ay xaalis ngir bébé Saloum te du yegg ci moom loolu yaa ngi ko wala waaw loolu dinañ dinañ ko yëg parce que benn bis rek euh, maa ngi nuyu aussi directeur de cabinet Bara Gaye Laye Sagna mos na may woo ne ma waa écurie écurie Bébé Saloum lañ fa ñëw pour bëgg a gisanteeg maire léegi maire na leen moom mu ne leen Mame Thierno ñëw na fi ñëw kan mooy Mame Thierno mm-hmm. écurie Bébé Saloum ku ma fa xamul rek bokkoo ci écurie bi mm-hmm. ku ma fa xamul rek bokkoo ci écurie bi kon nañu bàyyi ñuy def mm-hmm. Bébé Saloum lépp lu jot ñun xam nañ ko lu jotul xamuñu ko tollatuñ nag ci moment wu wax ak dem di solliciter nit duñ ko def kii ñëpp xamoon nañ digganteem ak doomu aadama yi ku ko war a jàppale ñëwal nga jàppale ko te yàlla tax ku ko ci mënul demal nga toog ñun loolu rek la ñuy wax nit ñi mais leneen lu nit di def na nga jàpp ne yow yaa koy defal sa bopp mais Bébé Saloum moom sant la ko. nga ne yéen procédure ngeen def pour mu génn fi mu nekk wala pour ngeen mën a jotee defante ak moom gisante ak moom ci hôpital. mooy xanaa ñaan ma xabaar ki nga xam ne moom moo yor dossier bi mm-hmm. ngi koy ñaan en tant que citoyen en tant que doomu aadama ak doomu adama mu dimbale ko LP bi mu koy ñaan may ko ko mu dem këram suba bu ñu commencé seeni enquête Bébé Saloum mbër la mu tëreer Sénégal ba kiri koro bu ko wowoon mën na ñëw donc Bébé Saloum pare na pour dem wuyu ji mais nañ ko bàyyi mu dem ci kanamu njabootam dem tëdd récupérer ba tane suba suba bu ñu ko soxlaa mu ñibbisiwaat voilà. dama koy kontaanee bu baax a baax moom mi lan ngay tàggatoo ban message ngay lancé. waaw message bi mooy sant ñëpp gërëm ñëpp bi ci des mooy euh, may lancé waat appel aussi état Sénégal muy euh, Sambour numéro 6 bi nekk 100 mètres. parce que na yi chaque jour man dañ may woo parce que ñun au-delà làmb dañu njabootee mooy créer benn mouvement bu tudd Vision Sénégal euh, ku nga xam na ni. sam euh, doyen yi Samba Sall moom moo yoroon dossier yenn gars yi finalement dafa nelaw mais ñu leen di wax rek dossier Sonko rek nekkul foofu noonu nga xam yeneen dossier yu nekk foofu noonu kooku nelaw na yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana mais nañu remplacer beneen gis mu dimbale suñu njaboot ji nekk ci kaso bi mais fi mu toll en tant que doyen des juges boobu remplacé wuñ ko ñi nekk ci détenu yi mën nañ faa mën nañ faa nawet te am na ñoo xam ne 2013 ba léegi ñu ngi leen jàpp tous les jours maa ngi dégganteeg ñoom may ñaan état Sénégal di ñaan aussi ministre bi nga xam ne mooy ministre de l' intérieur ak ministre de la justice ñu dimbale ñu doyen des juges boobu noonu ñu remplace ko ak ñu mu gën a gaawee pour ñu sauver doomu aadama yi nga xam ne ñu ngi fa nekk. di profito sant ñëpp di la sant aussi di la remercier parce que donc li nga def ni yombul boobu ba léegi yaa ngi jël sa crédit di ma woo pour pare pour soutenir ko lu ngeen ci mën a wax nag doyul ndax Bébé Saloum ñett ay yoon yoon pare woon na pour def grève de la mais dañ koy ñaan di ko ñaan sëriñam ñëpp di ñaan. may tàllal loxo sëriñam muy sëriñ Abdou Karim mbakke nga xam ne dafa tardivement la jot ci affaire bi finalement jot nañ ci waxtaan nañ ci yàggul di ko wax nag na dalal xelam rek euh, li sëriñ Sidi Muxtaar waxoon Karim Wade rek laa lay wax tëj tijjee ci topp te ci kàttanu yàlla dina génn léegi incha allah. macha allah dama koy bëggee bu baax a baax moom mi toog ah, moom mi ñëw toog fi leeral lu bari di ñaan axlu Sénégal axlu làmb Bébé Saloum ci ñun la bokk même bu dara caabi féete la ginnaaw rek dafa métti macha nga teg ci ay tawet. mu nekk lu métti loolu Sénégal nag tàmm nañ ku ñuy jàppale ku ne da fekk nga nekk ci kaw soo nekkul ci kaw kenn du la jàppale ku ci nekk sa bopp danga koy xoolee comme sa morom nga xoolee sa morom comme sa bopp di jàppalante ñun ñëpp di ñaan àdduna wër nga këpp Sénégal autorité yi di jàppale bébé Saloum jàppale képp ku nekk ci gannaaw baro yi ki nga xam te ne mooy bébé jéet duñ ko fàtte ci làmb la bokk danga naan génn golo gudd na waaye loo ci laal borom yëg ko mhm. mbër yi nañ jàppalante seen biir jàppale bébé Saloum xam ne ci yéen la bokk di ñaanal jàmm yéen ñëpp ñaanal ko suñu bopp yàlla doon ñu sutura ndax caabi féetale ginnaaw jombul kenn nañ yéene ñëpp jàmm ku nekk jàppale sa morom tendre la main ki ko soxla bébé Saloum nañ koy ñaanal mu wér ak jàmm daal di génn ak jàmm dellu ci jabootam di ñaanal jabaram soxnaam si moom nga xam dafa tollu diggante fu ne nii di ko naan soit forte lu metti yàggul lu metti yàggul lu metti yàggul lépp ay nettal lay mujjee noonu lay def jaajëfee leen bu baax yéen internet yi jox leen dëgg daje ëllëg ci beneen xew-xewu làmb incha allah